Ah, ñu ngi ak euh, sëriñ bi imam euh, Cheikh Sadibou Diaga kenn dootu ko présenté sama diggante ak moom ak diggante moom ak Sénégal tey ñu ngi fii euh, ci kër sëriñ bi kër gu tedd gi soxna Aïda Diallo tey organisé benn bernde fii ci Medinatoul Salam di fi nga xam ni moom mooy cofeel kër sëriñ Saliou mbake naka nga gisee li mu organisé tey mu dajeeg anniversaire u dajeeg sëriñ Saliou mbake mu tedd bi ak kii di Cheikh Béthio waa Pape Maguette maa ngi leen nuyu di nuyu Sénégal yëpp bis bu rëy bii bisu taranga la bisu islam xam nga Madina salaam lu muy tekki dëkku jàmm ci arab al Madina mooy dëkk salaam mooy jàmm ñuy ñëw ci bisu jàmm mu tobe lu rëy ci weeru koor dajeeg lu rëy ci lislaam muy xare badar xare badar mbégte la woon ci islam ci jullit ñi mu tobeeg demu ku tedd ku sëriñ Tuubaa gërëm ku Cheikh doomu sëriñ Tuubaa gërëm muy kan Cheikh Béthio kon soxnaam su baax sii bu defee lii wàcc na waaw ah, xam tax mu def ko soxna Aida Cheikh Béthio da ko fekk sëñ Saliou moom moo ma nettali ca Saalam ca Thiès mu dama tarbiyu kër sëñ saaliw dëkku Serigne Touba doomu sëriñ Touba mu tut tànk ba seex bi fekk ko fa. seex bi jël ko jox ko ko waaye fekk na ngërëm na jiitu na seex Béthio kon bisam bii ku ko jàppee ne soxna Aïda Diallo la sant juum nga ku Serigne Bamba gërëm la moom dafa bokk ci waa Dagana ay mbokkam nekk taaliba Cheikh na Tidiane moo ma nettali lii ca Saalam 10 heures ci guddi laa fa ñëw ba 3 heures du matin maak imam Sall mu waxtaan ci Rasulullaay kenn ba yaramam daw mu ma naa dellu siwaat nekk dellu si boobu mooy tay ji wax na ma ko léegi ba morom bi daf tourné nii di xool bernde yi ndax julli ñi kontaan nañu ndax bég nañu ndax kanu suur nañu mooy bég nañu rek mooy suur nañu jox nit ñi bernde jox nit ñu ñu lekk ñu dog loolu rek lay laajte ba xam nit ñi bëgg nañ yonent bi dafa wax sallallahu alayhi wasallam wax ju am solo abu udi bi doo fayi fa innama tunsiruuna aw tusriquuna bi doo fayikum mu ne li nga am mu bëri mu néew fekk yéen ko bokk yekk bokk ak jaam yàlla yàlla na ma yokk lii yombul de benn table bu nekk cent mille ba ko xoolee passé na cent mille francs ñaata taabal ak valeur ya ca nekk ak qualité nit ñi fa toog ñaata imam ñaata chef religieux ñaata ñoo xam ne bi ay technocrate lañu bàyyi sa lépp ñëw fii du hasard ku ne am nga loo ndogo sa kër mais ajjana yàlla du ko maye barke yàlla du ko maye ajjana da nga koy jafe waaye nag barke da nga koy jafe soxna Ayda wax naa ko ma ne ko dafa am jigéen ñoo xam ne yàlla neen dem nañ ajjana yàlla na ca bokk waaw ah, doo ma laaj kan ak kan la Xadijatu binti Xuwaylid mooy soxna Seydina Mohamed lu ko may kër àjjana gis ñu sonn mu jàppale leen gis ko am problème location mu fay la gis ko am problème ordonnance mu fay la ko gis ko yor opéré mu faja la gis ku ñàkk mu dimbali la te ba bëgg benn ba kenn siiwal ko. Cheikh xam naa boobu dañ koy tënk mais yow am nga benn diggante ak Cheikh Béthio Thioune lan mooy seen diggante yéen ñaar. Euh, Serigne Saliou Mbacké la. Cheikh Béthio gis nga doomam ji muy kan Cheikh Béthio kii sëñ Saliou fekk na ma Dakar fekk na ma Dakar tele lay wax ma ñu benn cérémonie ne ko sëñ bi kaay mu ñëw toog toog mu ne ma ma xëy ma ne ko xaw ma la may dem mu ànd man laa ilaha illa dama woor man dama woor xam nga man du man du man danaa fen ba ñu dem ba ci ba ñu dem ba ci saalam mu ne bi li nga def na ko def ma noo dara dara dama koy kilifa ma woon ko moom mu ubbi mu ubbi armoire la dama jëlal lu la ca neex ma ko jox ma grand boobu bu weex bi ba mu ne ma ñaanal ma ma ko loo bëgg mu ne ma ñaanal ma rek ma ko naa la ñaanal ba ma ne kii na doomu Cheikh Béthio Thioune la wallaay xaw ma kon kon soxna Aida bu ñëwee fay ma toog ko noonu ma jàng ko saal ba toog naa deux heures temps di ko jàng mais ba ma ko jàkk xool laa nga xam kii nitu yàlla la Sénégal nag lakk yomb na fi xamuñu ni yàlla nit yàlla du ay kabar du dem makka du aj makka gis nga defal nit xettali nit mu nekk ci coono coono nit yàlla ngoog. Cheikh Béthio xam lu ma boole moom sëñ Saliou Mbacké man maa ngi tudd Cheikh Sadibou Diaga sama maam ma nga ca ma nga ja bàyyi ko njum ca Fuuta dem ca xel Xelkom jaaga nu ma sant du Diaga laa sant muy liggéeyal tur yàlla ba pare mu ne maa ngi dem waa dëkk bi maa ngi dem booba àll la jàññ la ay garab la rek la ay montagne mu ne xut bu saman dana leer fii boo ko sëñ Saliou moo tax sëñ Cheikh Béthio ba mu déggee ne man Cheikh Sadibou Diagala ca Mbacke Bawal fekk sëñ Saliou ne sama papa day ma defal ay cant man sama pap ca gaawaan ca Mbacke ca la Cheikh Béthio ñëw ak i jooyam ne ma su ma bu ci boole rek beneen naa leen loolu ma boole moom kon tey bu ma ñëwee fii ci soxnaam si dadi ji te nag attention soxna si jàpp naa moom amante naa mu wóolare ba yombal xam sànq bi ma xool ma ah Oustaz Diaga ñëw wa sama xol sedd na xam ni ma xamee ne moom ca Saalum Thiès ba ma ñëw ne ci Saalum bëriwuñu kon te boo ñëwee fii Mor Ndar laa jóge conférence moom jaral na ma ko kon yéen Sénégal c'est international jaar naa fa ñaata vie la am ay millions lu ko waral parce que ñëpp a leen soxla wax lu leeru du ngeen gis ku amul qualité kon su ngeen jëlee bis seen Saalum yi yàlla yàlla defal leen jàmm jàmm yoo xam ne Saalum Saalum alors ñu ngi beneen keneen koo xam ni taalibe la ci kër gi Mara de la jeunesse Mara tey gis nga ndog royal bi ci bés bu tedd bi lan mooy yëg-yëg bi lan mooy cant gi. asalaamaaleykum mbokki àddina Alaaji Fallou Gningue Mara de maa ngi àddina sépp rawatina Sénégal ñu ngi fii Medinatu Salaam kër soxna Aïda Saliou Thioune moom Serigne Béthio ah loolu nga ma laaj kontaan naa ci lool ndax. yëg-yëg bi nu am moom wammaa bi nii ma tara bi ko faxaat rek moo tegu ak cant dañ koy biral man nag dama doon nit koo xamante ne kañaan néewut ci sama xol te soxna Aida mii lislaam jamu ko sarixa jamu ko aqixa jamu ko Sénégal kenn yabu ko ndax làkkil xunaa di kullal xibaadi ilaa ximaadi bi laa jalaayi la Sëñ Tuubaa woote woon soxna Aida mii loolee la xool ba woote lii mu woote fii ku fi ñëw tey sa xel dana dal ni muy dalee mooy da nga xam ne cant gi fii ko Sëñ Béthio bàyyi woon ah bu tey jii ku ne xam ne yokku na ku ne xam ne tey cant gi yokku na waaw